yàggul dara semaine passée bëree na à l'arène nationale def résultat bu exceptionnel bëree daan ñibbi ci cadre boobu ci lañ déplacé wu tey ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan mais aussi dañ ko fekk ci garage bi fi nga xam ne fi lay xëy di fi dàq wërsëgam jàng métier ba mookal ko di xëy di ñafe di dóor waar nee naa mbër yi mbër day am xëy mbër day am ci lu mu jàpp mbër day am waar Tubles fi lay xëy chaque jour yor métier am di ko ñafe boole ko ak làmb ji nag di bëre di def ay résultat bokk na ci li waral tey ñu déplacé wu ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan seen émission mbër ci waaram victoire après combat Moussa Tubles mooy sama invité tey rakk ji maa lay ziar maa ci loo ne santaat bu a rek am nga jàmm baax yow sant yàlla Tubles bu Kër Massar mbooloo Tubles bu Malika moom laa jàkkaarloo nii lan ngay ginnaaw ma ne aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim di nuyu képp kuy seetaan ci internet bi di jaar tamit gars yi fi toog yëpp kenn ku ne ma nuyu sa tur ak sa sant waa garage bi garage Tibles waaw di leen jaar ñoom ñëpp di jaar GE taxi bu Kër ma saar di jaar président Moussa Gueye di jaar ay secretaire général ba chef de garage ñu kenn képp ku fi nekk rek ñu ngi lay ziar boo fi nekkul it ñu ngi lay jox sa waay di leen man dégg naa façon tur bu ne ci làmb ji ah, mais biñ ne Tip Less sama xel dafa dem ci ci ci oto mhm. sama xel dafa dem ci oto dem ci pneu wala quelque chose boo yow mënoon ut beneen tur Tip Less mooy lan Tip Less boo xoolee oto bu bees bu ñëw Tip oto bu màgget boo ñor yaa ngi bëgg def Tip dafa nekk pneu bu garanti moom mooy crevé fii nga dem ba ci vulcanisateur bu dee sambral du la ko may bu Tip nag moom moom la gars yi képp ku moom boo sañoon Tip Less nga ciy def ndax pneu bi day baax boo ko boolee mu jox la Tip léegi yow da nga bëgg a wax ne yow yow tibles nga ci làmb ji bu bees tax nga quoi maanaam ku mel ni yow amul quoi. amul te du am maa ni yow amul te du am. déedéet. ah booy booy nag booy nag booy nag ah, attention defal ndànk ma fi ñëw nga may jéem a waaxu yow ku mel ni yow amul te du fi am. du fi am. ça veut dire lan lan mooy loolu. man rek maay tibles ci làmb ji te doo ko fi kenn nga ci gars yi. kenn laa seen biir. kenn ci biir mbër yi. kenn laa ci biir mbër yi xëy liggéey mhm. wàcc dem entraînement laa la xamee waaw te mooy am ba léegi dëgg yàlla loolu laa la xamee sama loxo ca kaw waaw mooy am ba léegi waaw di ko ziyaare waa koñ ba yëpp nag ndax foo taxaw loolu lañ lay wax mbër mu ñeme entraînement la mbër mu gëm li def la boole ci nag xaw a kàccoor nga nag des fois nga xaw a dégager yar yar ak teggin genre yooyu noonu ku la gi jàpp ne booy bi booy bi dafa cool genre yooyu noonu nga mel waaw loolu moom moom laay mel nii mais su dee ci géew bi moom adversaire bi day am problème te buy baax seet noonu la demee. boo génnee ci làmb ji da ngay kuul yaru nekk nekk nekk bi. mais boo duggee biir làmb da ngay changé nekk beneen genre. waaw parce que boobu boo xasee takk ngemb yow mbër nga mais boo takkul ngemb yaag booy dox ci koñ bi yéen a bokk yam man noonu laa ko jàppoo. koy mbër bi làmb ja la. làmb ja la li des mécanicien la. ñu dellu ci mécanicien bi ah, bala ñuy ñëw ci làmb ji eh, mbër ci waaram rak ji da nga jàng sa métier ba mokkal ko wala yow wala ba léegi apprenti nga da man dama jàng métier ba mokkal ko nit da ngay xëy di dóor damay xëy di dóor waat ba sama patron ber ma lu yombul. waaw di ko sant nag bu baax a baax grand frère bi la sama grand la sama patron la waaw teg ma place daal xam ne empruntéem laa rakam laa mu jàngal ma métier tanaa ma lii yombul ci mbër mbër mu jàng métier ba yor garage yombul moo tax ma ne la Tibles kenn la ci mbër yi foofu laa ko teg. gëm naa la waaw kenn la ci mbër yi yombul ngay gis mbër mu jàng métier jàng métier ba ber daaraam moo tax may lancer message yeneen mbër yi ne ni nan nan leen dem bi wuti métier bañ xaar ci làmb ji. nañu jàng métier. nañ jàngi métier bañ xaar ci làmb ji. bañ ko ci làmb ji kese. waaw boo amul combat yaay da ngay wuti reer boo amee sa métier nag kenn du la xamal yaay maye reer yow. te looloo gën nag. billaay wallaay soxla boo am làmb sa poos fajal ko sa bopp. billaay wallaay. ñi tey am soxla ñëw wax la ko nga yëkkati def ci loo mën. billaahi te chaque jour mu demee noonu mooy wax yeneen mbëri gis nga naa bi mu fi jaaree ñi amul métier tey jii ñoo def ay ay ay ay yanu marché yak yooyu kenn xamul mais yalla sutural na ñun biñu yoré suñu métier bi corona bi ñëwé ñun ko wat di jappalé yenen mbër parce que métier bi ñu ko may suñu grand frère loolu lañ doon wax muñal day metti mais day bax kon daal sa grand yow daf la jangal métier ba berla ba berma keur Massar fi mayor sama atelier boy sama apprenti yaa ngi fi électricien yi tôlier yi ku ci melni kaw moy électricien bi Ousseynou moy tôlier bi ñepp nag ñew jiital ma waaw makoy santé yalla nak nag di len ñaanal yalla bu ñu seytaana dox suñu digënté yow lan ngay def mécanicien nga wala yow lan nga. man mécanique électronique laay def. mécanique électronique. waaw mécanique ak électronique laay boole di ko def maa sama garage fii. Tubles eh, eh, may ma tuuti nag gis nga dafa am sénégalais yu ñuy seetaan ah, te man doo ma jaxaseeg sénégalais yi. yow boo yow yow yow mën nga mën nga oto oto lu ci paan mën nga ko dépanne. waaw yàlla ñu siy tuturaal bépp paan bu fi am du fi génn dem beneen garage. bépp paan bu fi ñëw doo ko fi jële yóbbu yóbbu ko ci ci keneen yow yaa koy dépanner sa bopp wala mu jugee gaaras fii ma koy dépanner kon instant bi ak lu làmb képp ku am problème ak sa sa oto boo wooyee Tubeless ne ko ñëwal réparel ma ko mu dem dépanne la. mu ñëw dépanne la ko. numéro service bi ñaata la. 77 154. 60 77 154. 89. 89. 42. 42. waaw loolu mooy numéro service bi. beneen bi 151 la. 77 la wala 66. 77. 77 100. 51. 77 151. 62. 62. 69. 69. 051. 051 77. 77 waaw 051. 051. 62. 62 69. 69 loolooy beneen ni mooy beneen numéro bi. waaw beneen bi 77. 77 084. 084. 08. 08 64 446. 46. yooyu yëpp numéro la yoo xam ne képp ku la ci woo fu waay mënti paan boo woowee ci Blaise mu ñëw dépanne la. lépp lu paan ci oto bi bàyyi ñu ci kanam ginnaaw lépp lu paan ci oto ku la woo ku la woo ñu dépanne ko. kon sama gars yi jël leen loolu seen émission mbër ci waarama euh, saa yoo yeewoo chaque jour da ngay ñëw xëy si saa su yeewoo ba dem entraînement ba ñëw sangu maa ngi ci garage bi mais booy nag booy nag ni mu méttee nag booy nekk ci ay weñ nekk ci ay ay moteur kan kan kan ngay ñëwee fii daj coono bu metti jóge fii bëgg a dem entraîné ji xanaa yow da ngay xaru waaw mais comme ñun ay xale lañ tollooguñ fu naan suñu yaram yeey metteeg yooyu xale ba ci la xanaa xale du sonn xale du warul sonn xale day sonn nit day sonn xale du sonn dégg nga li ma la wax xale du sonn day noppalu ko waaw wax na dëgg. yow boo bëggee yeewu dem entraîné ji jóge fa ñëw ci garage bi daj coono jóge waat fi demal entraîné booy foo jëm. fi ma jëm mooy fi ma teg sama bët ci làmb ji bu ma àggee foofu laay doog a noppalu ko. foo teg say bët ci làmb. waaw kenn moomu ko papaay kenn moomu ko. déggu làmb ji ah. papaay kenn moomu ko. ñemel lu metti entraîné yàlla jox la ko. bàyyi kenn moomu làmb. déedéet maa ko wax. Eh, rakk ji sa histoire ak làmb fan la tàmbale lan lan moo la boole ak bëri. waaw li ma comme li mel la wax rek moom laa leen di waxaat bëgg-bëgg la woon ak lu sama papa bàyyi ma am ci yoon bëgg koo doxal. lu papa bàyyi c'est-à-dire. lamb da ngaa doon bëri. sama papa da doon bëri waaw. sa papa da daan bëri. da daan bëri waaw. sa papa nu mu tudd. Maguette Kayre la tudd. Maguette Kéré waaw Maguette Kéré fa la daan bëri fii wala ci àll bi. ci àll bi. fan exactement. Corée Bawol geeg yëpp jëm ba dem na fi bëree ji ba dëkk bi Gambie. kon yow da nga judd fekk ngeem la ci biir kër gi. fekk naa ko si waaw. kon paa dafa amoon mission dem ba am benn niveau bu mu toll. yow nga ñëw war a continuer mission bi. moom laa bëgg te dinaa ko ñaan naa ko yàlla àggali ko. Euh, booy ban âge nga commencé entraîner parce que tamit qu'on se dise la vérité man du ma jay nit. man tey boo taxawoon ci erreur ma la hey nga ne mën naa a foofu nga taxaw baaxul. boo taxawee foo xam ne naaj ma ne la accéléré avancé man on se connaît très bien man du ma jay nit mais da nga di booy boo xam ne boo sumee koo taxaw ku la xool day xam ne kii dafa yag entraîner man lolu dama ko xam nit ko xamne ba muy entraîner day nek xalé bu ndaw di entraîner ko xam dafa dem ba mag commencer entraîner c'est pas la même chose mais yow kula xol day xamne da nga yag entraîner à quel âge nga commencer entraîner waaw ñun nak ñu ngi fatlé ko ñuy commencer entraîner 2012 lañ dugg ci xam benn mbeur bu ñu wax Boy ñaamu nek suñ koñ nek suñ mag yu baax. Boy Niang dal jamm dal jamm mhm. fu mu juggé dem entraînement day jaar suñ kër yi ñu and dem entraînement. Boy ñaamu Malika Boy ñaamu Malika. non la ñëmé noonu la ñeme entraînement mom koñ ba képp ko fa nekk man di juddoo Malika yoroo fa Boy Niang moo tax nga ñeme entraînement suñ grand boobu. pourtant yoon yoonam dafa dëgër. waaw mais dañ koy ñaanal yàlla rek fi mbëri magi àgg fa mu àgg fa parce que moom lépp lu nekk si ñun moom moo ko ci def. bu doon ñeme entraînement rek mooy mooy may ndam kon kon Boy Niang kenn du ko daan. Boy Niang bu Malika kon kenn du ko daan. mais day entraîné ba dee bu demee di fa affaire yi dëgër këcc. waaw làmb nag mooy bindoon noonu ñu koy ñaanal daal tolof tolof fi mu nekk nii ñàkk ndam yàlla na ko yàlla mayaat ndam mu nekkaat fi mu nekkoon ci mbëri yi parce que mérito na ko bu dee entraînement rek mérité na ko heure bu ne yee nañ ko dem entraînement mu nekkoon lu ñu bëgg te làmb moo doxee noonu rek mais suñ bu doon dañuy joxe ndam kon moom du ko ñàkk. kon bokk na ci ñi la influencé ba nga commencé bëri. yàlla xam na ko. bilaay mais ñeme bi yow ñeme bi nga ñeme entraînement lan la maanaam mission pas bi la nga bëgg ko continuer wala dafa am foo teg say bët wala moo tax nga ñeme entraînement. waaw ñaari yu ma boole la. mission pas bi la ak fi ma teg sama bët. moo la teg si ci mbeuri magi neena nee la ji papaay kenn momuko ci kaw nga jëm ci kaw la jëm kon ñëmé la gëm ak xam li ngay def. mbapat mbapat bu baax. toj nga mbapat. bu baax. yaa ngi jaagi ñoddi rek mbapat nga bu baax toj nga mbapati bu fo fo toj. fana fana bo bo lajoon ñi ci ginnaaw rek. ñu ne la diw kon motax may la man. yow lay laaj est-ce que toj nga mbapati. bu baax. Hmm. waaw champion fan ak fan Malika Kër Massar benn Prague yëmbal wala fan ma dolli waat la yi ngay wax yëpp toj naa ko ma dolli waat la dem parcelle ah, mbapat nga ba parcelle naa parcelle unité unité unité huit unité huit waaw unité huit mbapat nga fa waaw ko koo fa bëreel ñi ma fa bëreel bari na bëreel naa fa ay ay bitim réew mbëri mbëri bëri sax yu ma bëreel foofu noonu ba Mali parcelle foofu noonu ñoom buñ may ñu ngi gis nii bu nee tiblees dinañ xam ne moo leen daan toog seen kaw da nga leen daan toog seen kaw waaw nga ci non lima ci am bari na buma konté drapeau yi ne suñ kër ak coupe bi dinaa xam ñaata la. ñaata defet nga am nomé combat nomé mbapat. ñaar ñaari waaw. kan kan ñoo dal amma bu Kër Massar ak caatu yorax. caatu yorax man benn boy bu tuddu caatu yorax. ñaar ñoñu kessé ñoo mësa am dam sa kaw combat nomé mbapat. waaw mbapat nga ba dugg arène. mbapat na ba dugg arène. ñaari defet kessé nga am. kessé d'accord euh, tournoi mës nga jël tournoi. ay yoon yoon. ay yooni yoon yaa ngi ñoddi nag yaa ngi ñoddi VIP nag jël nga ay tournoi ay yooni yoon mbër yoo xamante ni tey ji mën a taxawee wax leen ko mën naa taxaw nii si télé bi nuyu leen passage wax leen ñii maa leen defaral waaw ñii nga xam ne maa leen defaral sama copain sama xarit dama koy nuyu passage Bulldozer mi war a bëri di ko yàlla ndam final laa ko daan biir waa mais Tibles eh, sama gars yi man du ñëw ci garage bi booy bi di ma may ma tuuti may ma tuuti coow jibul may ma tuuti booy ah. Bulldozer mi ngay wax topp naa ko fukki at ah. ëpp na fukki at lu ma ko topp benn yoon laa mës a gis fu mu daanoo benn ah. benn yoon ah. laa mës gis fu mu daanoo mooy digganteem ak Sam Badj Seras tournoi tournoi euh, Mamadou Dieye Sène euh, au stadium Iba Mar Diop benn yoon boobu laa mës a gis bulldozer daanu topp naa ko 12 à 13 ans boolewaat ci tey dinaa ko wolaat boolewaat ko ci tey sa diggante ak yàlla bëri ngeen tournoi nga daan ko bi ma ko daan mu ngi yeewoo suñ kër waaw dinaa ñëw gàlle nga waaw drapeau bi ma ko daan mu ngi suñ kër. digënté ak yalla ya daan bindu digënté ak yalla mako daan. tournoi final la ko daan. final final. non non day met bulldozer bulldozer di ba jaw ci kan ñent yoon la ko yanu gaay dugg ci geew bi. ñu dogo bari bëriwaat ma. ba del wax rek del wax ya ngi wax del wax rek. la tok ñi may seetaan ni ku tapé gis ko. moo lu bëri dama la piéger parce que instant bi dafa am lu jàkkaarloo ñun. lepp lu ma wax day bindu. daan nga bulldozer tournoi. tournoi drapeau muy suñ kër sa suma yéwo yeewoo di ko gis. xam naa ko moo tax ma koy ñaanal yàlla combat mu am ndam. instant bi moom instant bi moom yéen a bokk drapeau bi ngeen di défendre 100 pour cent Malika ngeen di défendre. kese biñ foree benn affaire am man lañ ko indil pour ma jox ko ndax xam nañ léegi ay commun lañ ay waay lañ barki dem la la bañ a génn suñu. jamonoy mbapat la woon mbapat affaire de koñ ak koñ la woon mais arène. affaire de gox la affaire de dëkk ñuy xeex Malika. Malika 100 pour cent Malika bi ñoo ko bokk. daan nga bulldozer final. bu baax wëlbatikuwaat ñëw fii tournoi ñoom Papa Sow 100. Papa Sow ban coach coach principal équipe Malika Mbolo Papa Sow waaw dan naa dan daan foofu mbëri mais xama rek comme bokk Malika bi dañuy gen, dañuy avancer lol génn xool beneen mbër comme booy toj nga ma pati waaw bala ngay dugg ci arène bi waaw benn tournoi la fi ñàkkaat fii te kii mooma daan kii bu tournoi duubalee si quart de finale lour sax Manick moo ma daan grand Manick. grand Manick Kalmandoor final Kalmandoor. quart de finale tournoi Double Less bi waaw. mais à part ça bari na. bari na ndax voyage. mise mise yi lan ak lan nga jël. mise jël naa coupe jël naa drapeau jël naa xaalis waaw. jotoo jël saako ceeb. jotumaa jël saako ceeb aw ma sans mais jël nga xaalis jël nga coupe jël nga drapeau. buy ay yoon yoon yoon tournoi. après nag nga dem nag dugg ci arène bi. waaw yàlla defal ma ma dugg ci arène bi. nga toj mbapat yi ah? def say preuve. xam naa ne instant bu moom gars yi ñoo la ne booy mbapat yi doy na kaay dem dóorante ji wala wala yow yaa toog natt sa bopp ne non non doy na waaye ma dem dugg ci arène waaw damay mbapat man ba léegi doyulu ma ba léegi doyulu ma ba léegi maa ngi dem ay Fatick Diobass fu ne Diobass na ba mujj jël naa fa ñaari yoon drapeau Diobass Thiès dem naa fa waaw tour naa ba léegi yaa ngi mbapat ba léegi maa ngi mbapat may woo mbapat ma ma ak ñoom dem bëreewaat ñibbi ci waat dem caajaay Fatick Fuuta Fuuta laa mujjee dem bëre di fa nuyu en passage Majaw ñu gën koo xam ci Zabu ndem moo ma yóbbu dëkkam ma dem fa bëre ji fa daan fa Zabu non benn booy bi ne ci man dëkkam la ma dem fa bëre fa daan fa njandaan croisement buubee ngay wàcc ma dem foofu bëre fa daan fa grand combat mu amaat tournoi ma wowaat fa dem fa mu amaat ma wowaat fa ma demaat fa yàlla defal ma ci ndam ma ñëw rakk ji nga dugg ci arène bi sa premier combat arène eh, fi ñu doon xaaree Tubeless yoon bi xaw a xaw a kii tuuti xaw a lëndëm tuuti lu waraloon loolu say say début ci arène bi lu taxoon affaire bi xaw a dëgër. waaw parce que boobu dañoo nekkoon benn booy bu nekk ci mbapat yi di def loolook loolu comprendre guñ arène bi nu mu demee ñu ñëw jox ñu koo xam ne moo ñu mag ci làmb. réalité yi bokkul. yi bokkul mbapat ak arène bokkul. waaw ñu jël combat bi mar di war a bëre dimanche. waaw boobu nag nekkoon nañ ci ko mbapat yi comme ni ñu daan bëree mbapat rek ñu jàpp ni mooy loolu. nga jël combat bi mardi. ñu jël combat bi mardi jour lañ xam adversaire bi ñu changé waat ko vendredi si guddi lañ ñuy doog a wax ki ñuy bëreel. pour lan lu léegi loolu lu waral ngay def loolu. waaw mais comme jàppoon ne làmb ji rek comme ni mbapat yi la rek da ngay dem bëre ju koo xam ne doo fa xam kenn da ngay ñëw rek ñu jox la mbeur nga bëree ak mom daan ko ñibi comme ni nga ko daan dundé ci mbapati nga japp ni arène bi tamit grawul waaw non la ko dundeewaat bi may dugg sama premier combat arène. nga dem juum ma dem juum top kan kan nga am sa premier combat arène kan nga am. ki la am Rambo bu Songane gay. Rambo Rambo bu écurie Songane euh Rambo saison bobu 4 combat la def 4 victoires. waaw bi may bëree ak man mo mu ngeek 5 combat am. saison bobu saison bobu carton plein la def parce que bobu la daan la daan alliance Baldé euh, euh waay waay Bargny avant Alliance Baldé yow la bëreel euh, digganteem ak bébé Sa Thiès ñu jox ko ak kan la daanaat sax saison boobu carton plein la def 4 combats 4 victoire yaa may dégg euh, boobu nga bëreeg moom ngeen bëri combat bu metti mu daan la mu daan ma waaw ci 4 appui 4 appui waaw nga jógee ci entraîné un an wala deux ans deux ans deux ans waaw nga toog amoo combat ci nga jógee école Doubalé euh, dem transféré dem dem école de lutte Kër Massar Mbolo Kër Massar Mbolo ñibbi sama dëkk deuxième combat bi nga bëri ak Jaay Doole bu yëmbal. bu yëmbal waaw. nu nu mu demee. waaw combat boobu maag jaay doole combat bu ma métti la parce que combat boobu dañ ci entraîné ba feebar ba jour bi ñuy bëre ji ñu ngi wàcc ba kenn duñu du waaye danañu bul doo bëre ji lu tax ma bëre ñu ne ma da ngaa feebar may leen déedéet bàyyi leen ma dem bëre ji. feebar feebar bay wàcc. feeñul ba maa bëre ba ñëpp xam ni kii bëre na. bëre ba dee. ba dee parce que boobu dama ne woon bakkan bi laa fi bàyyi. combat boobu xawoon na ma sene nag parce que sama ñaari booy lañ boole yow yow ñoo bokkoñ ke magam sama gaan la sama booy la damay dem gàllem et tout et tout et tout bi xawoon ma déranger quoi su ma sañoon kii jël yoon bi kii jël yoon gis ñaar ñoo xamante ni ñoo bokk yoon faaw ñu laale day metti rek munul ñàkk faaw ñu am ku dem am ku waaw mhm. buñ pareewaat bi nga ci bi nga jógee ci défaite boobu teguwaat nga ci sa yoon après waaw loolooy làmb mais mais deux booy toj mbapat yi dugg ci arène bi bëri daanu bëri waa daanu est-ce que doo découragé non man man bàyyi naa. waaw mooy li ma la wax ci début bi rek man dama am fu ma teg sama bët am lu ma war a àggali. mais deux défaites taxul nga découragé. déedéet boobu bi ma bëreeg jaay sa suba sa laa xëy dem géej 4 heures du matin mu ngi ma fekk géej bi may yeew dem suñu waa dana ma kii dafa feebar. mu ngi bëre war a noppalu li ma metti dama ko war a fay samay supporter am lu la metti te waroo wax nit ñi dafa am la da nga waroon a wane ne yow dafa am lu la metti waaw te yàlla suturaal na ma maa ngi koy wone nga dem entraîné ji waat. waaw waajalaat. waaw ñu jox la julo bu école man Mansour Mbaye. waaw yàlla def na ma daan ko jël bu rëy. nu mu demee combat bi mën nga cee dellu si. waaw mën naa waat parce que combat boobu. comme ni ma la ko waxee troisième combat bi moom lañ la jox euh, julo bu Mansour Mbaye nu mu demee foo jaar foo ko jaaral. waaw comme fi ma jaarale yeneen mbëri laa ko jaarale respecté entrainement yi déglu samay coach père Baba Maat Diagne gaa dal dirigeant wa keur Massar mbolo bi yep ñu xamni amna luma metti ñu tégaat ma ci yoon waaw ma gëm sama diri dirigeant lepp luñ ma wax def ko mom la def yalla may ma ci ndam ci combat bu metti bari nañ 18 minutes maa mom. moom. bëri combat bu metti bari combat bu metti 10 minutes amul arrêt 8 minutes amul arrêt ba ba jéelaam. nga jàpp ko daan. waaw. nga signé sa première victoire dans l'arène. waaw di ñaan yalla mu jamaat kanam. nga joggé ci ren. ñu jox la doomu minam bu euh, bu fële bu euh, bu barñi est ce doomu minam dugg na écurie Kër Massar mbooloo daan fa mbër est ce que xam nga woon koo xam maa ngi koy doog a yëg daan na fa bébé Zabu bébé Zabu xanaa barñi la barñi la c'était en 2015 ou 2016 man maa ngi fa woon 2015 wala 2016 2015 2016 waaw loolu ko woon kon dina a métti si moom non mais nag booy yow yow foo jaar foo jaar doomu minam fan nga ko waaw mooy comme wax rek dirigeant yi a daan waaw maa ngi dégganteeg moom sax di ko nuyu à part. booy bu mën a bëree la. booy bu a bëree la waaw nekkoon ci yoonam mais tamit làmb mooy demee noonu jour bi ngay jàpp ni ndam la mën naa nekk tamit jour boo xam ne du nekk ndam ci yow waaw di ko nuyu à part. mais ko jaar fi ma jaar mbëri rek nee la sama coach laa déglu père Baba Maat jaañ ñoom ñëpp ñu teg ma ci yoon waan ma foofu ma defaralaatul ko. nga defaral ko. waaw lañ lay bàyyee jàpp defaral nii lañ lay bàyyee. waaw mooy yoon parce que jàpp daan jàpp daan lañ ma di tuddee suñ seen tiset di sax loolu lañ ciy bind say tiset jàpp daan nañ ci bind waaw bu jàppee mu jeex waaw ah, slogan bi bu jàppee mu jeex bu jàppee mu jeex dëgg la fépp foo dem loolu la koo jàpp wàccee ko ku ma jàpp moo ràccee ko boo yéexee rek dama laa jàppul léegi instant bii nag xanaa da nga jël vacance nag instant bi bëri nga daan est-ce que instant yi da ngay jël vacance noppalu 2 mois 3 mois 4 5 mois 6 mois genre ana combat samedi am na <laughs> samedi ban di ñëw waaw <laughs> ah. combat bu samedi dimanche daa sori bu samedi amee kay nañ ma ci dugal. la lan tey la jeudi. tey la jeudi. <laughs> samedi. bu samedi amee nañ ma ci dugal. sa digganteeg yàlla nii pare naa waa Thiénaba nee ma pareel suba suba suba nga bëree ji nii ku la joxoon combat un nga jël. un daa sori nee naa la samedi ma bëre. bi kon billaahi ma jël ko. nee la combat bu yàqu bu doon samedi ma jël ko. loo loo nar saison bi. li mooy quatre combat laa bëgg ci saison bi quatre victoire. bokk par force. bokk ci poule bi. ñi ñuy yuuxu ñiy daw ñi yëpp. bokk ci coow li bokk ci coow bi laa bëgg. par force far force fara force doole mbaam. sama gars yi tubeless mooy wax ak yéen ah. instant bi ñaata séance ngay entraîné instant bi. deux séances laay def par jour. deux séances waaw. bi boo yeewoo bala ngay xëy si. dem géej. géej waaw géeju Malika waaw. dem entraîné lu métti. dem entraîné lu métti. boo fa jógee euh, ñëw liggéey. ñëw garage. après 18 heures moyen ma takk jóg dem écurie ba. dem contact contact yi waaw. chaque jour deux séances. chaque jour deux moom rek laa xaar neenaa naa la bu doon samedi ma bëre. adversaire yi ñan la ñi nga war a bëreel instant bi ñan la. ñi ma war a bëreel xam nañ seen bopp. comme comme kan ak kan. bëgg naa bëreeg caatu fora. caatu fora man mbër bu xees. mbër bu xees caatu fora tarkinda. waaw bëgg naa bëreeg caatu rëbës. caatu rëbës le procureur de rëbës. waaw bëgg naa ko. bëgg naa bëreeg. Amel la grosse caatu rëbës moom digganteem ak Boy Diop mi ñu ngi ko doon wax dèjà xaw ma Boy Diop moo daw xaw ma nu mu demee noonu parce que combat am na fu ko dégg am na fu ma dégg caatu caatu caatu caatu rëbës ak Boy Diop. waaw léegi loolu xam o Boy moo fente xaw ma a dugg foofu. njambali la ma jox pour ma bëreel jéego. waaw kon na li mu yoroon. da ko wax Seydina Omar. Seydina Omar waaw. Ah, jubul jubul coo ah jox na la bagage yi moom dégg naa daa fente man maa ngi dégg ay rumeur ci suuf daa fente daa sëgg bagage yi genre moom nañ seek waxtaan après mais yow yaa moom la léegi jox na ma affaire yi yow mécanicien nga di maa jox affaire yi ah, li mu yoroon ci xam-xam ak waaw Kep bep boy bu ko don soxla ma ngi ñew eh, chat fo rang lima ah? waaw chat tu Rëbës. waaw lim nga kenen bawal bawal. desna desna bawol bawol bawal bawal bi jeex jàmm na ñew jeex jàmm na ñew tuddu nga fi Amel Lagros. tuddu na Amel Lagros tuddu jeex jàmm na chat tu Rëbës na ñew est-ce que xam nga jeex jamu daanoo moo tax nag ma war koo defaral ñi daanoo ko xam nga ni Amel grosse day freiner waate mënu len kenn boy boy bobu boy bobu dafa mëna béré koku dafa am doole dafa mëna béré nga am ñoko mëna li muy yor déggal sa supporter na jooy to dañ koy jooy mu jeex ñooñu kooku noonu du combat sax billaa wala taalaay duñu benn liggéeyul liggéeyul duñu benn liggéeyul tu day